aywa Pape Mo Pape Modou Lo ngi noonu loo Lo ngi noonu di ñëw egsi na ci porte bi courant moo coupé woon de bàyyi bàyyi leen rek ñu def niñ bëgg rek bàyyi leen bàyyi leen Modou noonu gars yi ko bul wàccagun Modou loo egsi na nee na ko bul wàccagun Modou Lo ngi noonu Pape Ndiaye Modou Lo le roi des arènes ñëw na ànd ak Yaram Gueye ànd ak Baba Ndiago doomu nday Ousmane Sy Sy Jesner business kenn du moom son numéro un de Lutte TV Awards meilleur lutteur de la saison ñëw na Pape meilleur lutteur de la saison ñëw na deux combats de victoire delloo ziar Mbacke ngi mais Mbacke Mbacke dafa mel ni soxna si soxna day fay ah mais Mbacke mi yeex na am soxna Petit Lo noonu moo war a bëri ak Brise de Mer numéro 2 Ilimane Lo borom njàmbur production moo ko tëgg. waxtaane rek force reste à la loi force reste à la loi ñu a dugg nañ dugg ñu warut a dugg ñibbi waaye yàlla bi moom ana moom Pape ana Siteu. Siteu mi ngi xam naa ci yoon bi nag. mbooloo ma bari. xam naa léegi mu ñëw. xale yi dañ ko bëgg Pape. waaye bu ñëw mbooloo de. Siteu xale yi dañ ko bëgg Pape Ndiaye. waaw non Siteu moom moom na si ñu gën ci làmb ji. dañ ko bëgg. waaw ndax moom mooy champion jàmm gën jàmm ci moom lañ yaakaar pour am roi des arènes. waa Dionewar dañoo bëgg Siteu. waaw waa Dionewar tam dañ ko bëgg ndax foofu moo leen fa représenté ci làmb. Falia dañoo bëgg Siteu. yow nag est-ce que bëgg nga Siteu. bu baax a baax a baax c'est mon ami. koy koo faral. këlëmeer gañ yàlla nañ bëre bëre bu métti xeex métti ah, dumante këlëmeer gañ waaw loolu moom mënut a ñàkk ci làmb ji Lamine gëm naa ne dina yàlla nañ xeex xeex bu métti gëm dina xeex xeex bu met duma ko duma mais xeex xeex mun na am duma. yàlla na ngeen xeex xeex bu métti. xeex mun na am duma duma. booy bëtiloo kaay kaay kaay mi nga amee jabar ba léegi da ngaa commencé am biir yow nga ne xeex mënta am. xeex mun na am du ay duma ay duma. kan ngeen di duma. xoolal yaa ma sa gis ku duma Siteu ci laam. kenn ngeen ñaari kenn ngeen mën kenn ngeen mais ay laaw la ma ne xeeb ngeen xal de Petit Lo mbaa du ngeen xeeb xal mu lakk seen daay non xeeb moom amu ci Petit nee na ñaari ñi bëri am na ko ma ah moo doo mën moo mën moo bu doole ñaari ñi am na kenn daal ñaari ñi Modou daa mën wala da ngeen a bëgg Modou man minutes bari na na wàcc dugg six minutes bari na na wàcc dugg Baba Ndiago ah mon ami Baba Baba xarañ loo Baba borom jesneer yi le grand commerçant Baba ay grand commerçant Baba dem yaay borom jesneer yi ak parfum yi borom borom jesneer yaay Ousmane waaw man maa ngi Ousmane waaw mu na ko dindi ngi nii coow ak am fit ñoom leen dugg maximum Modou bu duggee wallaahi keneen dugaat ku mën a dugg na nga dugg nag Modou kenn nit baaba force à la leen may ñu liggéey waaw jërëjëf c'est yéen a baax jàmm rek ngeen dem may leen policiers force reste à la li ngeen bëgg rek la ñu def jërëjëf chef jërëjëf ci moom kay mënuñu leen a bañ neexal moom xam naa ne sax ñu ngi ci yoon ñun waaye nag mënuñu leen a bañ neexal waaye nag terewul ñun ñu ngi ci yoon pap papa ngi noonu champion la de papa soo noonu digganteem ak Birahim deux bu leen ko fàtte Papa Sow ngi noonu digganteem ak Santa Ñing digganteem ak Tafa Boy Bambara xeex bu métti. laa illa du ko dóor keroog may bëgg ngeen baal ma dóor na ko dóor yi métti kon. digganteem ak Bac Seras digganteem ak xamante muy mun a lañ diggante Papa Sow Paul Maurice jël bu ba digganteem ak dun xaaf ah maa ngi fiy gis nag waa l'œil du lion waaye am kóllëre ko bàyyi ci bi zalba kóllëre ko ci oto bi kóllëre ko ci bàyyi oto bii mooy kóllëre. wër na ya àggal ba Mauritanie àggal ba Gambia. ne Bissau Conakry Modou wàcc na. le roi des arènes wàcc na. dar nañ ko. Modou xarañ loo noonu wàcc na. Papa Ndiaye le roi des ngi noonu. ngay dugg dem ci plateau bi di xaar ki nga xamante ne moom mooy yàlla mbin bi. loolu ci kanam dina leer incha allah. du mën a yomb le 24 novembre drapeau père père ba drapeau père ba la loolu vingt 24 novembre incha